ne xam ne ni rakkam moo ko uutu di un mhm. mhm. mhm. waaw xam nga ku dem rek na ñëw bu gaal demee gaal kos rek yàlla ma mel noonu bànqaas bu dara bànqaas saxaar rek waaye dafa mel ni seen bàyyi noppi na ci ñoom defar leen ci ni mu ko bëggee defar bu rafet ñoom kenn ku nekk ci ñoom si seen xale seen ndaw dama ne rek bokkoon ci ndaw yun sansa defoon ci islam ne képp ku jur doom ci lislaam su buy bisu ngénte ba na ko tuddee tur bu rafet yaakaar naa tur ngénte sëriñ bi ki dem bi ci guddi tur bi nga ko gën a sellal li nga tuddee mooy Ahmadu Ahmadu Ahmad Tidiane waaye nag Ahmad bu day waar Isa bi muy jàngale Ahmad ne mu ngi ñëw dafa waxoon ne wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad kon kuy Ahmad bàyyam bi mu ne wa Ahmadu. sirru zaatu wa zaatu sirruha tasawaa ala idrakihi jëld waahida loolu benn mbir la tey conférence tax ñoo jóg gàmmu tax ñu jóg tey dañuy waxtaan ci du day waar tudd nga tur bu rafet kii topp ci moom tey ci xilaafa gi tey a Cheikh Mahi ñas nekk moom borom xam-xam la xam kenn du ko waxati bi mu toll ñoom ñëpp biñ nekkee xale bu ndaw la leen seen bàyyi tur yi yu rafet xool tur bi Mahi xam nga luy firi mooy farkat bi luy far kii far réer li muy saxal dëgg al maahi mooy maahi tur bu sell la yor mooy tamit màgg ci la maahi googu nag ci moo màggal ca tey ku ne xamante ne maahi la tey lam yëpp maahi la maahi day far rek parce que maahi bu teegee ba jël micro dana wax fukki heure yoo xam ne lu wax du ko waxaat te lépp am na njëriñ kon kii mooy xalifa tey yàlla may ko na doole yi mu mel ni ki mu remplacé waaye nag ko mag ku ngand la remplacé nag garab gu mag moo daanu waaye nag garab gu mag gu daanu ay garab dana saxaat eh,